Oh, yéen a ngi euh, ba tey ci réveil bi euh, c'est l'heure de l'invité de PEF Pierre-Édouard Faye qui reçoit aujourd'hui euh, monsieur Théodore Chérif Montey nekkoon ancien parlementaire monsieur Montey ñu ngi lay nuyu baax a baax vous n'êtes plus à présenter quand même vraiment <laughs> ça va bonjour maa ngi lay fay di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu sen nu ngi koy waxatee téléspectateurs yeeg auditeurs yi di nuyu bépp sénégalais bu ñuy seetaan ci émission tey bi di ñaan yàlla mu may ñu kàttan ak xam-xam bu ñu fi waxtaanee lu jëriñ Sénégal. Mm-hmm. Euh, surtout ak situation bi xew léegi léegi euh, moo tax sax Pierre euh, wóolu la ngir ñu waxtaanee ko bonjour Pierre. bonjour Aïcha maa ngi lay nuyu. di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi Salma Mademba ak ñëpp ñuy suivre jamono ji programme Walf TV ak sunu invité Théodore Chérif Monteil comme ni nga ko présenté nekk ancien député ancien directeur de campagne. Mhm. bu kandidaa candidat Mamadou Lamine Diallo loolu aussi dinañ ci ñëw ak résultat yi ñu si am ñu waxtaanee rek mbirum actualité bi. ak euh, perspective yi. kon mhm. sans plus tarder Edouard mu la ak euh, mhm. Théodore. voilà euh, Théodore Chérif Monteil ni ma ko waxee léegi yaa nekkoon directeur de campagne bu Mamadou Mamadou Lamine Diallo ngeen am 0 virgule 22 pour cent ci résultats yi nekkul ay résultats yu leen décevoir. bon on a eu une petite déception mais xam nga boo nekkee un acteur politique rationnel et. Euh, objectif da ngay mun a jàngat résultat en fonction de de l'environnement et de la situation donc boo seetloo bu baax euh, élection yi ñu jógee euh, à un certain moment balaa ñuy dugg sax ci campagne bi bi polarisation bi dafa commencé woon diggante coalition Diomaye Président ak coalition benn Bokk Yaakaar donc c'était clair à un certain moment que amuloon place pour un troisième candidat donc boo boo seetloo ñoom ñaar seen résultat bu jàllee ñi ci des ñëpp daanaka amuñu dara je pense que kenn ci ñoom amul euh, pourcentage bu ko permettre sax mu récupérer caution yam mhm. loolu c'est la réalité du terrain politique donc boo ko jàngatee da ngay xam ni lii dafa am lu ko waral mhm. et mooy c'est c'est une conséquence normale de ce que les Sénégalais ont appelé le vote utile mhm. en certains moments comme dañ fi bëggoon jëlee coûte que coûte benn bokk yaakaar dañu xalaatoon ne que disperser vote bi dafay jox chance euh, candidat benn Bokk Yaakaar bi bu demee deuxième tour mu am ay alliance mun na créer euh, un poids sur la balance moo tax sénégalais yi méngoo euh, dajaloo ñoon ñëpp lëkkaloo daal di voter ci benn côté pour ñu jox au premier tour le président Bassirou Diomaye Faye une majorité confortable pour gagner donc c'est à l'honneur du du Sénégal ce sont les Sénégal sénégalais yi ñoo voté ñoo tànn donc dañ leen ci féliciter dina nag léegi politique bi jeex na après l'analyse des résultat li ci des mooy liggéey léegi bi bipolarisation boobu yéen lan ngeen def ba réellement mën a créer benn troisième voie ngeen imposé wu entre les deux moom laa lay wax c'était pas facile et impossible quasiment parce que ci période bi la ci durée bi ak réalité yi donc loolu yëpp dafa def de telle sorte que déjà amuloo temps pour pour casser ko euh, engouement bi ci Sénégal yi amoon ci sénégalais yi amoon c'était tellement fort que déglootuñ kenn parce que pour nga convaincre nit déjà il faut mu may la nopp donc loolu yëpp bu amul ce sera très difficile voire illusoire de de de de de se créer une troisième voie parce que nit ki moom bu la mayul nopp munoo def dara ba mu déglu la. léegi sa compagnonnage ak la Lamine Diallo est-ce que yéen a ngi évoluer ngeen ko après la présidentielle ak euh, avenir bi lan la ak moom. Euh, suñu compagnonnage c'est encore d'actualité parce que li ñu lie c'est d'abord euh, une façon de faire la politique deuxièmement dañu am un programme commun bu ñu tuddee l'agenda pour le redressement du Sénégal mu am ci ay yo yoo xam ne yaakaar nañ ne sénégalais yi soxla nañ ko soit dans le cadre de notre coalition soit dans le cadre d'une contribution à un gouvernement qui s'ouvre donc euh, ñun euh, nous sommes des politiciens qui ne font pas de l'opposition une euh, une fin en soi. Mm-hmm. ce qu'on pense c'est que bu waxtu politique jotee waxtu liggéey jot. bépp sénégalais fépp foo nekk ak fépp fu la fekk war nga mun a ñëw dugal ci sa loxo soit sous forme de réflexion soit sous forme de proposition pour que Sénégal jëm kanam. voilà la ñu refermer fausse ouverture boobu comme ni ñu ko waxee ci journalisme euh, dugg nag ci actualité bi euh, si sa sa casquette ancien parlementaire euh, moo may gën a concerné moo may gën a intéressé nga nekkoon un député très en vue ci treizième législature bi nga révélé wu au grand public sénégalais yi xàmmee woon la ak liggéey bu am solo bi nga doon def assemblée. assemblée nationale tey amoo déception le fait que tey bokkaatoo si euh, quatorzième législature bi euh, nga xam ni moo fi nekk jamono ji no pas vraiment comme ni ma ko waxee sànq rek xam nga affaire bi du affaire u poste du affaire yu position parce que Sénégal euh, réew la boo xam ni ñëpp a ko bokk donc foo mun ci nekk rek war nga mun a participer te d'ailleurs bu ñu duggee ci waxtaanu crise bi dinaa la woon ne participer naa ci parce que ca ca ca keroog ba muy ba muy tàmbali ñun gis nañ teel nañ koo gis pour alerte donc euh, c'est pas forcément que da nga nekk biir hémicycle que nga mun a continuer euh, keroog doyen Doudou Wade daf ma ko doon daf ma ne daanaka dafa mel ni bi nga nekkulee député nga gën a nekk député. parce que damay participer ci réflexion bi député yu bëri dañ may oo dañ may bind. Euh, dañ may yónnee ay textes pour ma jox leen ci suma réflexion. du liggéey boo xam ne dafay fës ñun ñëpp dañ koy gis mais c'est un travail qui porte. boo xam ne euh, en tout cas ci député ñu ci bëri ñoo xam seen première expérience la maa ngi leen di jàppale di leen accompagner di leen euh, jox ay réflexions sur yenn textes di leen pointel ay articles yoo xam ne moom la ñu war a utiliser sur certains débats donc fi ma nekk nii ak fa ma nekkoon pour man benn la en tant que citoyen en tant que citoyen engagé suma engagement c'est pas forcément par rapport à un poste c'est par rapport au travail que je peux apporter pour ce pays donc euh, am ci benn regret li am assemblée nationale jamono ji cette polémique née euh, de la déclaration de politique générale du premier ministre est-ce que mën nañu ko jàppee crise ci assemblée nationale. bon pour le moment enfantillage la mais on va aller droit vers une crise enfantillage la parce que de part et d'autre ñoom ñaar ñëpp respecté wuñ texte yi aussi bien le premier ministre que euh, l'opposition parlementaire. Euh, parce que l'opposition parlementaire euh, amul comme ni ko ni ngeen koy waxee nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mënuñu euh, wax ne que règlement intérieur bi lii wala lii xam nañ bu baax li nekk ci règlement intérieur mais député oppo député euh, régime bi tamit waaye Yewwi Askan Wi xam nañ bu baax depuis deux ans li nekkoon ci règlement intérieur parce que personnellement laa leen alerté c'est pas quelque chose boo xam ne dama ko seetaan de loin dama ci nekk au cœur parce que la réforme de 2019 man maa ko defoon ah et j'étais le porte-parole de la commission des lois man ko présenté à l'Assemblée nationale donc xam naa bu baax li nekk ci texte bi donc quand on a fait revenir le poste de premier ministre ñoom ñu jël les les dispositions relatives au premier bindaat ko daal di distribuer document bi j'ai appelé j'ai appelé les députés pour leur dire attention une loi doit être présenté en commission des lois voter en plénière et comme c'est une loi organique dañ ko war a présenter au président de la République mu soumettre ko au conseil constitutionnel pour xool sa conformité par rapport à la constitution avant ñu koy promulguer cette loi n'est passée n'est pas en fait ce document n'est pas passé par ce circuit donc ce n'est pas une loi. Mm-hmm. donc aujourd'hui document de travail bi ñuy utiliser à l'Assemblée nationale ce n'est pas une loi mais à l'époque kenn ci ñoom réagirul mhm. on j'étais pas seul Alioune Souaré ancien député alerté na mhm. euh, le président Doudou Wade ancien député alerté na on est passé dans la presse pour en parler mais ça n'a intéressé personne mhm. kenn waxtaanu ci Sénégal donc pendant deux ans ñuy liggéey avec un document boo xam ne baaxul ñu xëy benn bés parce que ça les intéresse ñu gis ne que document boobu baaxul mu nekk problème. dangay confirmer ni faux règlement intérieur bi li ñu naan règlement intérieur assemblée nationale. en réalité c'est c'est du faux parce que le règlement intérieur c'est la loi mhm. moom rek lañ voté benn règlement intérieur boobu moo am beneen document c'est un document euh, bu ñuy utiliser mais du règlement intérieur liñ mun a ooyee règlement intérieur. qui a été par le président de la République et publiée au journal officiel, c'est la loi 2019-14 mmh. qu'on a votée en octobre 2019 et qui a été promulguée le 28 octobre 2019 par le président de mhm. am. Mhm. yeneen yi ah, mënuñ mënuñ en fait. on peut pas même de faux on peut comportement illégal de démarche illégale par les par les députés mais par les députés hein, par toute l'Assemblée nationale à commencer par son président jusqu'au député ñoom ñëpp xam nañ ne que document bi du document bu baax. sa politique générale du moo ci loolu laa doon jëm. Mm. pour wane ne que ñaari ñaari parti yëpp nekkuñu ci dëgg. le premier ministre n'a pas se préoccuper du. règlement intérieur de l'Assemblée nationale ça le regarde pas mm-hmm. règlement intérieur Assemblée nationale Assemblée nationale le le le le le le ñoom c'est le document de travail c'est un document mm-hmm. le Premier ministre il par la Constitution en son article 55 qui dispose que à sa nomination il il fait sa déclaration de politique générale mm-hmm. c'est la constitution qui lui moo koy wax ne demal assemblée nationale nga présenter fa sa déclaration de politique générale que assemblée nationale wax ci ci premier ministre wala mu ñàkk wax ci premier ministre ça ne le regarde pas. parce que ko ci ay délais quand même. ko ci ay délais. Mm-hmm. tënku ko ci ay délais daf ne il fait sa déclaration de politique générale mais la le temps qui est utilisé dans ce dans cette phrase en français est est un temps. très clair c'est du ne il fera. il fait ça veut dire immédiatement tout de suite. maanaam dès la nomination. dès la nomination à sa nomination il fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale donc la pratique parlementaire et l'élégance républicaine veut qu'on reste dans un délai reconnu ce délai reconnu c'est trois mois tous les premiers ministres qui sont passés à l'Assemblée nationale pour def seen déclaration de politique générale ils sont restés dans ce délai sauf un et dans des circonstances particulières parce que boobu dafa amoon dissolution am élection et cetera ce qui fait que mënuñ woon def euh, DPG bi dans les dans les délais de trois mois donc amul dara lu ko tere mu dem tey assemblée nationale pour def déclaration de politique générale les députés ne peuvent pas ne pas le recevoir parce que ñoom constitution moo leen tënk la la le règlement intérieur est en dessous de la constitution constitution moo ñu tënk ñun ñëpp il faut pas que ñu commencer di foyee suñ loi yi quel que soit le niveau bu ñu nekk et puis euh, c'est c'est c'est une c'est rien une déclaration de politique générale à part présenter une feuille de route dire aux Sénégalais voilà mon objectif yoon bi laa bëgg a pour yegg fa. ñu bëri sax ñu ngi douter de l'utilité d'une telle d'un tel exercice. que ce soit utile ou pas tout un pendant presque des heures. yoo xam mm-hmm. ne bon que ce soit utile ou pas on, on, a, on le commente le lendemain après on l'oublie. que ce soit utile ou pas c'est une disposition de notre constitution. constitution dañ ci war a. tant que mi ngi ci constitution bi dañ war a respecté dañ ci war tënku que mu baax que mu bañ baax que mu intéressé ñu ma ñàkk ñu intéressé mmh. c'est la constitution euh, ni ko gars yi di waxee la loi est dure mais c'est la loi dañ ko war a respecté parce que mënuñu commencer di foye suñuy loi bu mmh. bu fekkee ne ñi ñu jiite ñi ñu fal pour ñu yore réew mi ñooy foye loi yi Euh, xaw ma naka la citoyen yi di comporter woo bu boobaa. mais li premier ministre wax la ne assemblée nationale bu ñu réglé wul problème règlement intérieur bi moom le 15 juillet il fera sa déclaration de politique générale mais devant un jury populaire. bon mooy li may wax rek de il fera une déclaration il fera il parlera avec des gens mais ce ne sera pas une déclaration de politique générale parce que la déclaration de politique générale en tant que concept appartient à la constitution du Sénégal. c'est moom moomu ko. et puis un jury populaire ne peut pas recevoir une déclaration du premier ministre ça veut que bu ñu defee noonu demain mun nañ convoquer un jury populaire pour voter des lois ça veut que bu ñu defee noonu demain mun nañ convoquer un jury populaire pour invoquer l'article 70 et faire la déclaration de guerre donc il faut qu'on soit sérieux le président de la République se prête mm-hmm. le Sénégal est une représentative ce n'est pas une démocratie directe comme la Suisse euh, les autorités vont demander directement l'avis des citoyens. Ici, la seule fois qu'on demande directement l'avis des citoyens, c'est au moment du référendum. Donc il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas qu'on joue avec nos institutions. mais mais Théodore aussi euh, diggante le premier ba le quinze euh, yaakaar naa ne am na marge de temps pour les parlements pour les députés euh, de d'essayer quand même de rectifier le tir xool kii bi li nga xam ne moom di règlement bi coppandi ko avant le quinze bi nga xam ne délai est parti par le par le premier ministre. parce que quoi qu'on dire également ku nekk mën na ko jox par de vérité ci situation. Aïcha règlement intérieur mën nañ ko régler en une semaine moins. oui. parce que lan la. amul lu ñuy bind bu fekkoon dañ koy bind sax ñu ne nit ñi dinañ tëju ci néeg pendant un mois di réfléchir pour mettre en forme mais le document existe déjà. Mm-hmm. Mm-hmm. il existe parce que bi ñuy réformer dañu dindi toutes les dispositions concernant le premier ministre yokk trois commissions mm-hmm. loolu rek moo changé woon en 2019 donc 14 commissions yi du changé tey donc dañ leen di bàyyi donc on ramène les dispositions relatives au premier ministre mu jeex tàkk. ah di di woon nañ motion de censure on ramène la motion de censure et cetera donc euh, c'est très facile <laughs> mun nañ ko régler en une semaine il suffit que n'importe quel député d'ailleurs j'ai vu que le député Cheikh Abdou a déposé une proposition de loi mais il faut qu'on ouvre une session extraordinaire <laughs> session extraordinaire président moo ko mën a ubbi wala la moitié des députés pour quinze jours pour 15 pour 15 jours avec un ordre du jour bien déterminé donc président de la République mun na engouffré wu ci brèche boobu ubbi section session extraordinaire pour examiner la loi la proposition de loi relative à la modification de, du règlement intérieur mun na sax def plus rapide mun na poser la question au conseil constitutionnel pour ñu wax ko est-ce que le premier ministre en l'état mun na dem présenter ou devant euh, la représentation nationale ou pas donc il y a de euh, beaucoup de solutions mais ce que je veux dire ce n'est pas le le problème du règlement intérieur le problème du règlement intérieur c'est un problème boo xam ne c'est interne à l'Assemblée nationale ça n'a rien à voir avec la DPG il faut que ñu séparer leen de plus le Premier ministre n'a aucune injonction à faire à l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale est une institution souveraine les pouvoirs la séparation des pouvoirs voudrait que le Premier ministre ne leur dise pas quoi faire xam nga man dans certains milieux je l'avais dit j'avais dit que le délai de trois mois qu'on a introduit en 2002 dans le règlement intérieur, le Conseil constitutionnel le faire sauter. Mmh. Parce que l'Assemblée nationale n'a pas à dire au comment il doit faire sa DPG il, quand xam nga kañ la ko loi organique di mun a def bu ko constitution prévoir. c'est-à-dire day junju dara ne une loi organique viendra des et cetera mais constitution fii article 55 mayul kenn. mu wax naka la ñuy defee DPG constitution daf ci pare daf ko bind tëj ko. Mhm. daf ne DPG bi lii lañ fay wax buñ paree ñu waxtaanee ci ko buñ waxtaanee ba pare premier ministre am na euh, coobare poser question de confiance bu fekkee question de confiance bi voté nañ ko ñu continuer buñ ko voté wul gouvernement bi daal. député da yeewi quand ñoo ñoo ñooy xël ak député bi kan ci nekk sa camp nga xëcc. moom laay wax c'est-à-dire assemblée nationale amul député camp. ah, ah gis quand même. moom la ñuy gis toujours man mii moom laay gis. ñun ñëpp sénégalais yëpp loolu la ñuy gis. et c'est déplorable parce que loolu dañ ko war a ñaawlu. c'est-à-dire député sa parti wala sa coalition ñoo lay investir waaye ci euh, këyit yi dañ bind. député à l'Assemblée nationale du Sénégal nekkuloo député Yewwi nekkuloo député Benno nekkuloo député keneen député Assemblée nationale du Sénégal nga donc sénégalais yëpp nga war a liggéeyal nit ñi tant que bàyyiwuñ euh, loolu ñuy def di di ñëw Assemblée nationale parce que constitution daf ko wax de député amul mandat impératif kenn du ko wax fan lay joxoñ kenn du ko wax fan lay voté mhm. moom moo war a xool en son âme et conscience ndax texte bi baax na pour askan wi wala baaxul ci pour askan wi mu voté ko wala mu ñàkk ko voté mhm. donc loolu c'est une faiblesse chez nos parlementaires et il faut qu'on le corrige mais nag dafa laaj une euh, ay nit yu mun a jël hauteur mhm. dafa laaj nga mun a départir de certains euh, aspects Euh, de la vie. Mhm. Euh, pour mun voilà pour mun a jël. Euh, position yooyu parce que mhm. très souvent gars yi dañuy tënk seen seen seen seen seen euh, nu ñu koy waxee seen pep. voilà léegi liy parlementaire Benno Bokk Yaakaar wax nag ne dinañu entreprendre ay réformes ba président de la République dootu amati la possibilité dissoudre assemblée nationale loo si xalaat. am nañ ci am nañ ci droit mais ce qu'on doit comprendre c'est que yooyu c'est des dispositions yoo xam ne référendum moo ko fi indi woon c'est-à-dire yi ñoo ko voté donc il faut que ñuy def attention quand modifie la constitution xam lan lañ ci mën a modifier de façon objective ak lan mooy toucher. les orientations que le peuple sénégalais a voulu donner à sa démocratie am nañ ci am nañ ci droit parce que la révision constitutionnelle peut se faire mun nañ def proposition de loi mais fàttali que rek ne que proposition de loi bi bu ñu ko defee dañuy comme c'est une loi constitutionnelle dañ ko war a jox président de la république pour avis président de la république mun na joxe avis favorable wala mu joxe avis défavorable wala mu ñàkk a joxe avis moom la fi président Macky Sall defoon temps yële bi ñuy euh, dàq euh, kii bi euh, élection yi mais avis président de la république tënku leen malgré tout ñoom mun nañ ko présenter mais président de la république bu joxee avis défavorable danga war a xam ne bu loi bi dellu see ci moom am na lu mu ciy def parce que bu ñu ko voté assemblée nationale ba pare moom moo ko war a promulguer mm-hmm. bu ñëwee ci moom mun na demander une relecture bu demander une relecture loi bi dafay dellu assemblée nationale pour ñu délibérer une deuxième fois mais cette délibération cette seconde délibération demande une majorité qualifiée c'est-à-dire trois cinquièmes de l'assemblée nationale le premier vote c'est une majorité simple contrairement à ñu bëri lu ñuy xalaat ne loi constitutionnelle majorité qualifiée la non majorité simple la loi organique sax moo gën a jafe voter loi constitutionnelle Sénégal parce que dañ def erreur ci texte yi moment du référendum loi constitutionnelle majorité simple moo koy jàllale bu jàllee président bu demander une euh, délibéra une nouvelle délibération bu boobaa dañuy soxla une majorité qualifiée trois cinquièmes des des des de l'assemblée c'est-à-dire cent soixante trois cinquièmes de cent soixante cinq ça fait quatre vingt dix neuf députés ñoom amuñ quatre vingt dix neuf députés yooyu dañ koy jëli peut-être ci PUR ci wàllu ci euh, taxawu mm-hmm. et peut-être même ci biir yeewi parce que dégg naa ñu naan dañ bëgg a déposer une motion pour que le vote soit secret parce que le vote en principe il est public le vote de la loi constitutionnelle il est public dañ bëgg a def un vote secret pour que ay parce que moo wax la fi mu nekk nii c'est pas le Sénégal qui les intéresse c'est le salaire leurs indemnités et leurs avantages de députés looloo tax ñu bañ ñu dissoudre assemblée mhm. loolu règle mais cette assemblée n'est pas bonne pour le Sénégal ah parce que gis nañ li mu jur tey ah, Sénégal ay fal assemblée nga ni baaxul gis nañ li mu jur première première jour ñu bëgg a def DOB ñu ne ñoom duñ def DOB. Mhm. est-ce que ñoom am nañ sañ-sañ en tant que député ne li constitution bi laajte ñoom duñ ko def. DOB débat d'orientation budgétaire débat d'orientation budgétaire. Mhm. loolu dañ ko war def c'est une obligation mhm. constitution moo ko laajte mhm. loi organique relative aux lois de finance laajte ko ñoom ñu xëy ne duñ ko def mhm. donc cette cette assemblée dañ ko war a dissoudre effectivement le président doit pouvoir travailler dans la sérénité sénégalais yi dañ fal président bu bees dañ ko war a yaatalal yoon bi mu liggéey parce que pour sénégalais yi surtout que c'est trop tôt boobu ci ban délai la ko janvier parce que débat bi bëri na si délai bi deux ans très ans la ans yi 12 septembre lay mot. ok 12 septembre 2022 lañ leen installé wu euh, installé woon donc le 13 septembre mun na ko. Euh, dissoudre mais nag y a des conséquences. lan mooy conséquences yi yi première conséquence bi oh. mooy que. Mm-hmm. ça va être difficile de voter la loi de finances mm. initiale. Mm-hmm. en entre octobre et décembre. bien que foofu bu ñu voté wul budget moom mun na euh, reconduire budget bi par décret mais il y a aussi surtout la nouvelle élection. parce que constitution daf ne en cas de dissolution les élections doivent se faire entre soixante et quatre donc soixante et quatre-vingt-dix jours nga ñëw ci euh, code électoral mu ne la élection législative dafa war am parrainage parrainage boobu ça doit cent cinquante jours avant le scrutin donc il boo dissoudre assemblée nationale bugg a modifier code électoral amatoo assemblée bu ko kii parce que assemblée bi mënatul délibérer donc da ngay da ngay nekk dans une impasse parce que li constitution wax pour nga def ko 90 jours la la jox pour nga def élection euh, code électoral ne la il faut nga am jours pour def élection bu boobaa peut-être recourir au conseil constitutionnel encore une fois. Mhm. pour ñu statuer. jërëjëf encore perte temps lay doon. merci Théodore Chérif Monteil mhm. euh, waxtaan bi tey am na solo xam nañu lu bëri en tout cas ci confection wu euh, assemblée nationale ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Aïcha merci yow tamit Pierre Edouard Faye léegi léegi dañuy dem ci la chronique du